Euh, Paris ndax ku ne xam na ni am na yeneen groupe consultatif ci yeneen yi réew waaye ku ne xam na ni Sénégal moom Paris la baaxoo euh, di amal li nga xam ni moom mooy euh, groupe consultatif donte itam am na yeneen bërëb yoo xam ni dina dem di fóot ay fonds loolu xam nañ ko li tax mu bëgg a tàmbalee ak yow xafa mooy ci mouvance présidentielle bi nga nekk ndax éthique ndax itam morale ndax maye na ko ci ñaari weer rek ñu jëm ci élection yoo xam ni euh, jongante la euh, nga organiser groupe consultatif bu mel nii yenn réew mi ay bor yoo xam ni daanaka sa la première fois sax dégg ko ci ndax loolu mayee na ko li ñu gis. maa ngi lay euh, Papa Ngagne je pense que en li am nii il faut ñu replacer ko ci contexte Sénégal dafa am fu mu toll jàpp naa ni am réew boo koy doxal ñu dénk la ko. li ngay doxal da nga koy teg ci yoon planification mm-hmm. euh, te lii dafa c'est dans ci biir ni état Sénégal di doxee ni réew mi di doxee du question système wala régime euh, liéewul dara ak li nga xam ne nii fa la jëm ci élection yi ndax li am solo mooy euh, président dafa tegoon benn plan Sénégal émergent mu nekk plan boo xam ne nii ci ñaar fukki at la donc loo xam ne nii du dul moom li fi nekk ci réew mi. Mm-hmm. alors plan boobu nag dafa am ay séquence mm-hmm. mm-hmm. euh, séquence bu njëkk bi moo nekkoon 2014 ba 2018. boobu ñu teg ko ak programme ak projet yi nga xam ne nii yëpp ñoo nekkoon ci biir. dem uti financement donc ñu jëm ci beneen euh, plan boo xam ne ni mooy deuxième phase plan Sénégal émergent nga xam ne ni mooy tàmbalee 2019 jëm 2024 23 jeex 2024 muy plan d'action prioritaire yi nga xam ne nii lépp la ñu war a tënk doxal ko ci réew mi ci at yi di ñëw donc loolu tamit nga xam ne ni Sénégal dafa def jéego yu bari parce que bu ñu bu ñu wax ni mbir mi bor la parce que Sénégal def na ay effort yoo xam ne nii li ñu leerul mooy. nga ne bu ñu wax lépp bor la. li ñuy wax effort yi ñu def. il faut que ñu wax ni Sénégal je pense que ci communication bi foog ñu gën a loolu. ndax Sénégal li ñu war a euh, daanaka dépenser ci juróom ci ñeenti at yooyu ëpp na presque dix mille milliards. dix mille milliards yooyu daanaka lii ci ëpp trois quarts yi ci budget Sénégal. ci programme d' action prioritaire bi ci budget Sénégal lañ koy jëlee maintenant dafa amoon gap bu manqué boo xam ne nii boobu lu ma 30 pour cent la ñu war a dem moo mottali ko ci partenaire traditionnel voilà loolu donc amul dara lu au contraire amul dara di problème ak affaire éthique ak affaire morale dafa di vision la et et président vision la euh, planification la euh, perspective la ak cap bu leer boo xam ne nii fi réew jëm teg projet yu leer programme yu leer ut ba pare nag yemuñu ci projet ak programme mais ut li nga xam ne nii moo tënk financement bi nga xam ne nii bu ñu commencé à partir de 2019 incha allahu rabi d'accord déroulé euh, engagement yi merci directeur général euh, Diatara Yankoba euh, dégg nga li nga dem nañu ci groupe bi mhm. ñaari weer moo dox suñu diggante élection yi ndax luñ mën lu luñ mën a rafetlu la jëfin bi ba la ñuy ñëw ci ci mbir mi ci boppam waaw ñu jàpp nañu ni Macky Sall présentement. président Macky Sall. président Macky Sall présentement li muy def jéem a tuur lëndëm Sénégal yi la wala contourner benn contexte politique et économique bu xaw a quand même particulier au Sénégal ndax defe naa bala ngay dem naa da ngay def perspective pour deux mille dix neuf jaayal nga Sénégal yi benn plan. les 2004 2018 mais fais le bilan dem dans une perspective da ngay def bilan Macky Sall li mu waxoon lan la ci réaliser lan moo des hmm. lan moo ciy njeexital ci Sénégalais hmm. mooy quel est l'impact du PSE ci Sénégalais ci seen dundin seen démb ak seen tay hmm. ñu def le bilan bala ñuy dem perspective defe ci ay dañ koy ci ay secteurs soo jëlee par secteur de l'éducation defe naa ni tout le a ngi quarante mille élèves hmm. étudiants hmm. ñu bàyyi leen ci tuus bi jàng bi ça fait deux mois est-ce que un pays émergent mën nga négliger sa éducation sa jeunesse bi nga xam ni moom mooy yaakaaru réew mi ëllëg hmm. nga ni mën na damay dem ci une perspective xam nga xam ne xel nangu nga jël la santé ànd gësam présentement ñu ngi ci seen dix souvent d'ailleurs je discute avec des directeurs d'hôpital mais il pense que le gouvernement n'est pas conscient donc des des enjeux de l'heure au niveau des hôpitaux presque mun ñenn nañ ma baal mais presque mun waar la bu ñenn ñi jàppe yenn Sénégalais parce que simplement crise bi nga xam moo am ci hôpitaux yi manque de prise de conscience bi gouvernement bi am xam nga kon Macky Sall su ne day dem Paris lebaat à peu près mille cinq cent milliards dem fa wéy def folklore def théâtralisation et tout cela je dire mu ngi jéem euh, tour le dab Sénégal yi par rapport ak li ñu jëm muy élection présidentielle te ñun jàpp nañ ne Macky Sall ñaari weeru ko des ci réew mi pour lum 2019 ci lay jeexal moo tax yow yi def yëpp mën nañu bañ a saf te defe naa ne Sénégal yi lii mënu leen a mënu leen a góndi wala mënu leen par rapport à li jàpp ndax seen vécu quotidien seen seen dundin lan la ci Macky Sall changé ci cinq ans yi sept ans yi fi def beneen bi Pape ñun jàpp nañ ne également Macky Sall p plus pour les étrangers les entreprises étrangères les pays étrangers que pour les Sénégalais. ndax soo defee le bilan. nga ni par exemple leboon nañu à peu près plus de 3000 milliards. nga def le bilan ñu xool lan yan sénégalais yi ñoo ci gis seen bopp yan entreprise sénégalaise. ñoo ko bénéficié wu ñan ñoo ko exécuté tey. defe naa ni li mu def même c'est extrêmement grave dem ba Paris rencontre ce secteur privé ak secteur privé français de leen xas. naan d'accord pour ñu seen exécuté xam plus étranger la ñuy liggéeyal tubaab yi. d' accord que waa Sénégal. ok ba tax na ñun li ñuy def noonu. d' accord d' accord monsieur Diatara c' est vrai que dugg nga bu débat bi parce que dama bëggoon rek ñu ñu ñu ñëw ci forme bi nga xam ne moom la defee eh, groupe consultatif bi ci deux mois ci élection mu dem loolu laa bëggoon xam mais c' est vrai que junj nga ko eh, wax na ko moom dafa ñu dugal rapidement ci ci waxtaan bi eh, Abdou Khafor impact wax na wax na bilan junj na ko. est-ce que du woon dafa war a defoon euh, benn benn bilan euh, phase bu njëkk bu PSE bala ñuy tàbbi ci beneen bi di laaji xaalis. mais bilan bi def nañ ko mais je suis heureux dama kontaan euh, yaa ba ñëw ci ci ci ci bilan xam nga taxaw ne bilan amu fi Macky Sall deful résultat loolu xam nga ne nihilisme mënul weesu loolu. parce que est-ce que est-ce que loolu la wax deful bilan est-ce que loolu la wax. vraiment est wax aussi. non dafa ne waaw gisuñu bilan. ok d'accord gisuñu bilan ok balaa ñuy dem euh, di jëli leneen ñu def évaluation. je pense mhm. que aujourd'hui le bilan est extrêmement clair. Mhm. tey boo xoolee Sénégal euh, comme ni ñu koy waxee ah sur les éléments du bilan tey Sénégal. sur c'est la première fois sur quatre années consécutives ñu am un taux de croissance qui est à plus de 6 pour cent. tout à loolu dégg la. Euh, tey Sénégal euh, président li nga xam ne nii moom la entreprise bi mu teg. Mhm. sur tous les dans tous les domaines. de la vie nationale. Mhm. tous les domaines mais vraiment tous les domaines. Mhm. tey Yankoba damay commencer li gën a sell. yow yaa ngi yëg bilan bi. ba boo jógee Thiès di ñëw dakaar yaa a quelques années. une heure trente deux heures de temps nga doon def. à partir de suba bu ñu inauguré Ila Touba yaa ngi ko ba trente cinq minutes ngay def Dakar Thiès. je pense que loolu rek loolu rek yow mi nga xam ne nii boo jógee fii tey nii boo jógee fii minuit minuit quarante cinq yaa ngi biir Thiès je pense que loolu tey en terme d' infrastructure. li nga xam ne nii euh, infrastructure yi def nañ ko pour désengorger euh, Dakar pour la mobilité urbaine euh, ci projet. même yu nga xam ne nii day envisager pour l'avenir parce que gouverner c'est demain. Mhm. gis nga dakaar nu mu am embouteillé gis nga mobilité bi ni mu mel loolu moo tax tey train express régional boo jëlee ci fukki at yi ñuy ñëw ci kanam daanaka 15 millions de Sénégalais dañuy dëkk ci périmètre Dakar Diamniadio Thiès euh, euh, la la la zone des Niayes loolu moo indi. ñu teg tey programme d' infrastructure bu indi TER mu justifier li nga xam ne nii moom lañ ci def soo demee euh, ci énergie eh, mais ñun xam nañ. waaw waaw euh, que loolu moom c'est vrai ci énergie lu ne euh, fànn moom kenn du ko jeex. boo demee ñëwee ci ñu mm-hmm. ci banlieue bi. Mm-hmm. nga dem Guédiawaye. Mm-hmm. est-ce que déggati nga Sénégal kuy wax problème inondation. amatul. Sénégal. Euh, amatul problème inondation euh, dans l'éducation je pense que euh, ñun ñoo bokk génération ñoo jàngandoo c'est vrai il y des problèmes parce que tey ci réew mi nous avons une population essentiellement jeune mais effort yi nga xam ne nii def nañ ko ci enseignement supérieur yaa ngi xam ko kenn mënu ko naan. d'accord merci yow xam nga benn chiffre laa koy jox ci bilan bi. waaw foofu 1960. Mhm. ba 2012 Sénégal pour étudiants yi. 5000 lits lañ fi tabax. 1960 ba 2012. entre 2012 ak ren tabax nañ fi 5800 lits te ci programme bi. ci lii ñëw ci kanam yeneen 5000 lits danañ ko tabax. yeneen 4 ans yi. donc je pense que euh, mun nañ fi toog ba